bëreel. waaw bëri ba teguwul ci yoon. lu tax bëri de du yoon. Mm. ndax ëpp ko doole ñaari yoon. te dafa taxaw bëgg gite ngaas ak moom sans pour autant mu déplacé ko. Mm. déplacé wu ko da koy baaje. waaw waaw ah, da koy baaje. da nga koy luur da koy baaje doxloo ko. moo tax xaw ma day <coughs> Bombardier ak Balla Gaye mm. non su ma bañutoon làmbu Gaston yàqu sax kon kii mën naa analyser léegi daal lay wax kii daan. mais wax nga ma défaut Diène Kairé. waaw Modou Anta lan mooy défaut. Modou Anta gisoo la mu indi. ba keroog ba mu tajee ak Yékini. junior. mbatum deux pieds nañ ko dóor. waaw. tax <laughs> moomu song. di mm. song di téléphoné. xeex baa metti nag. daa téléphoné songu ba dafa ndax boobu la mu jël ci ku bari na. na ok bari na la mu jël ci mu ngi saigné. Mm. moo tax mbër soo ko bëggee daan su fekkee songukat la danga koy xañ jàmm. Mm. soo ko xamee jàmm si kay ba suy ñëw. du ko tey ah gisoo ah la ak Modou Lo. waaw mais xam nga kii daanaka dafa jébbalu rek. Mm. baa ban koy kii. mais booba métti na métti boo xam ko saf jàmm wax ji dafa rafet ne nag dañ koy kii xam nga ndaanaan nga koy daan mais wax nga ma seen défaut ñoom ñaar ñëpp waaw ñu ñëw ci seen qualité ah jën waane la doomu mbër la waa da koo namp waaw il a sport dans le sang waaw fii ci stade bi laa la wax Iba Mar Diop waxuma la rond de waaw ta gazon ba waaw tatan bi wër ko coureur waaw fi ñuy bëree mhm. bëxal ñett nan def baayam laa lay wax de. waaw moo bombardier. waaw. mu dóor ko séri bombardier xuus màbb daw pakkete ko mu nooju ko. Hmm. mu dóor ñaari bëtu oom yi raam. dégg la. mu daw bàyyi ko fa bombardier jóg làmb ji yuuxu ku nekk am foo jaar góor gi Iliman Ndour moom moo tax mu sëggaat ndax boobu mooy président Soumbédioune Mm-hmm. papa Youssou papa Youssou moo ko ne kaay sëggaat. Mm-hmm. mu sëgg daanu. mu sëgg daanu waaye su doon man du sëggaat. Modou Anta ndax war naa taxaw di xaar Diène rek ci làmb ji. Diène waane la de Modou Anta nag tëlewul moo ñoom laay goote waa Thiès maa ngi leen nuyu. xale yu mën a ñoom laay gote waaw waaw ñoom jeex jàmm xam naa leen bu baax ñoom Matar waa ambulance. <laughs> dama ko dégg ci biir signature bi mën a jën yow yaa yow yaa soxla dama lay xaar. ah loolu de stratégie la ndax loolu. kenn nan ko ma sa wax ma ne ko lii mu lay wax dalay nax hmm. bàyyi man doon papa saw da ko ne woon dama lay duma damay dox sa kaw uh-huh. foo nekk ma fekk la fa hmm. ma ñëw njoon ne ma nee daf may duma bàyyi dinaa ko seetaan ba ma ne ko kii da lay duma hmm. yow kii fan la mën a jaar ba jot la ba gaañ la kii mënu laa gaañ jotu la bala moo xuus dara dalu ko dugg sa garde su dóoree la moo génn mën nga koo dóor remise te soo ko dóoree remise day toog doful kii dalay nalawal de. <laughs> kon arbitre sifflé jóg seen diggante bi arbitre jógee seen diggante. Hmm. ba papa saw nelawal ko. Hmm. ba bàyyi ma njoor nang ko kaay kaay xam nga mbër loo gën a léewtoo rek gën a ñeme sa adversaire. Hmm. di léewtoo ak moom ba bi mu ko xobee ci kaw rek def semblant simulé pour dóor ku bàyyi ma njoor benn bàyyi fa tànk moom. mais bi mu ko suufee laata baay ma doon di xalaat la ko xalam da koy nax de li ko wax ah. te waaw li ma waxoon bàcc seeraat ak kii kii ak booy sëy eh, fii la woon sa papa laajal sa fii la woon waaw mu wax ba pare ma ne ko dalay war daan la moo booy sëy waaw te da ko war de. boobu bis bu nekk booy sëy ñëw seen kër. maa la wax lii. romb ci mbedd ma ne ko sama nit nga. Mm. ak <laughs> kii fekk buntu bu mu ko yoxoo sooba daan ko la bëgg. da koo pakete buddi ko doon suuf. maa la wax lii. da lay nax de jaarul foofu de moo Modou Anta de. <laughs> seen combat kaaw. waaw mën na cee am ndax Modou Anta tëlewul waaye jéen dafa waane. te bu leen xool yaakaar ne Modou Anta moo ëpp jéen doole. ëpp ko doole de. Mm. barke borom Tuubaa ëpp ko doole. moo daan dañu ëppul jën kay rek. déedéet volume nga gis. ok. waaw Modou soo ma ko mayee ma am lu ma ko laaj. laaj Modou Anta. Mhm. ki mu gënoon a yab. Mm. ci mbër yi mooy Mamadi Ndiaye. daal na ko ñaari yoon sama kanam. Mm. mais père su ma déggee sa dafa mel ni jéen euh, nga jox chance ci contre Modou Anta parce que bu ma déggee sa analyse yëpp. moom nga jox moom nga jox favori autant pour moi. man munoo maa jaxaseeg Sénégal. non laaj la. dafa nàkk dama. Ah, ah, ah, damay dem Thiès su soobee yàlla kenn mënu maa tee daagu Thiès diggante Kawsara ak taaxi kaw fu ma neex laay dugg mhm. man kenn ñemewu maa laal mhm. man ku ma laal ku ma laal di nga régler loo xam ne ci këru àdduna doo xam foo koy yenni ko mhm. musuma la ne Diène Kaïré non dama ne dama ne bu ma la laaj dama ne d'après sa analyse waaw dafa mel ni jé jéen kay mi ngi jox favori mooy favori quoi mooy favori d'après sa analyse joxuma kenn favori hmm. déedéet mais boo doon jox chance ñoom ñaar ti kan ngay jox pourcentage ci ñoom ñaar ba kenn ku nekk mën naa daan moromam hmm. waaw kenn ku nekk mën naa daan moromam mais li may wax Modou Anta xam na li ma koy xam na ne jéntalewul dafa nga ne ak ni Modou Anta toll ak ñi mu bëreel hmm. xale bu tuuti ñëw di doomu champion. mbaayum di mbër ko à que mu ñëw fekk si ko. Mhm. moo tax Anta ba muy dugg classe danga koo fekkee boobu jën daa faj dara. kon ci ñaari combat yi ban combat moo ci dàq moo ci dàq. ci ah? ñaari combat yi. ba combat moo dàq. moo dàq Anta Diène moo dàq ndaw man moo ma dàqal man. Mhm. ndax waaw moo ma dàqal. Mhm. Lac man nam wa ma ko xamee woon defatu ko. Mm. muy ban. doon taxaw Xaadim Diallo saaganu ndey man ak Pape Diagne Seras ak euh, Mama bu waalo. ak euh, El Hadji Malick Niang yàlla na ko yàlla yërëm. amiin ca Buntu ba palaasu Aziz Ardo. waaw. Moussa Ganou Ndeye. Mm. ñun ñëpp Khadim Diallo benn coxeur la woon. Mm. mu dem ñun ñëpp ñaam lu nax ni léegi ni nu mën a def mooy nen. doon koy dumalu. dañ koy dumalu. <laughs> waaw koy door dañ koy koj lu daal. léegi nu dem daal di gisi sëñ Modou Niang. waaw nettali ko li xew lépp ak ni mu nu saagaa. coxeur la am na doole mu ngi ci estation tali bu mag dégg nga tey taxaw na saaganu ndey léegi doonoo bëgg li laahi wa rasuuli nga tëgg kombaam ak Lac de Guiers nga ni ma barke borom Tuubaa waaw kon yooyu da am mais bi mootul ma mootul ma papa yi lamb yi daw yoot ko waxaale ak moom hmm. mu xaw a daw ndax waxaale bi xaalis ba bari ñu yokkal koo xaalis <laughs> lépp ñu dumalu ko rek ban ko yokkalee mu jël combat bi ñu ne alhamdulilahi rabbil alamin boobu lak di muy xeex maa doon dee waaye ban ko ko joxee hmm. da koo duma da ko daane ñu ñëw romb xaadim jàll ko yoo xam nga ne dinañ la duma lu <laughs> da ngeen war a dafay nag saaga day booba lak day xeex jox ko batika waaw te batika faas la nekkoon hmm. ñu ngi ko bëree pikin ca amadou bari waaw day dóor batika ba batika dëpp damaa gis ne song ko mu défendre boppam da koo dóor bopp bi xar nees. wala waaw bopp da ko ku la ko dóor bopp bi xam mais xeexatu xeexatul déedéet ba kañ nga gis mu xeex waaw lu tax xeexatul. jàngat bi nga def ci lu tax xeexatul. ah xeexatul waaw ah, xeexatul. Mm-hmm. léegi ah. ñoom ñaar moo ko seen. dafa tàppet wala lan ko dal ba xeexatul moom. Ah! ba xam nga man géejawaay wallaay dama faa bari ay. da nga fa bari ay soppe ndax Balla Gaye ni ma mel ak moom gis nga gis nga buri man rek la bëgg mhm. barka borom Tuubaa dëgg buri daf maa bëgg bëgg ak sumulu ba nga xam ne mhm. kër ga aw ma sens interdit nu ma neex laay duggee mhm. waaw dëgg la ndax doonoo dëkk diggante Simbani Balanta ak